waaw ambiance mon toujours mon euh, c'est la même chose fii mon comme ni ngeen ko gisee nii c'est euh, c'est une famille quoi donc euh, ñun ñëpp benn lañ donc ñun ñëpp ñooy tirer vers vers même même même chance pour pour pour voilà. doo gis kenn ku ku ku ne dama war a jouer wala lii wala laa ku ku nekk yaa ngi toog di xaar. Ah, man moom duma ma aw ma intégration la parce que sénégalais la donc du intégration sénégalais la comme ñëpp donc damay ñëw pour bokk ci famille bi donc maa maa ngi góorgóorlu ko. parce que ñun moom comme euh, football mooy suñu métier dañuy jéem a def le maximum rek li ñuy laaj ci terrain bi ñu jëm ko def comme lu ñu coach bi laajoon. Donc euh, ñu ngi doon essayer le maximum pour pour satisfaire ko donc euh, j'espère que que voilà. man moom euh, damay bàyyi nit ñi nit ñi parce que man moom li ma intéressé rek mooy dugg ci terrain bi jéem a le maximum pour pour satisfaire ñi nga xamante voilà ñi ngi toog di ma seetaan ak ñi nga xamante bëgg nañ tey man bokk ci titulaire jeu donc le règle def comme match préparation je pense que le résultat c'était pas pas si important donc ce qui est le plus important moi, je connais avec jéem a sa performance jéem a ce ce monde de moom fan pas ak ak la